tukkal na àdduna territoire yaakaar naa ni boo demee ci marché bi moom la ñuy waxtaane nga dem ci tiktok bi moom la ñuy waxtaane euh, day baax tey ñu ñëw dalal ko fii nga xamante ne mooy suñu plateau euh, duñ sori ci waxtaan bi ah, dañ koy jox mu nuyoo ko mbokk internet Feeling Dakar TV yi koy seetaan après njëkk ak moom ci waxtaan bi euh, père ñu leen di dressé ah. eh, fiston Abdoul maa ngi lay fay di kontaan si yow la bëggee di waa du nuyu waa Feeling ndakaar yëpp di wax kontaan naa lool jàkkaarloo ak yéen tey soppay fans yi këpp ku ñuy bégee ñu ngi leen bégee waaw waa Feeling Dakar daal am ngeen feeling <laughs> waaw comme li nga waxee de Feeling Dakar am nañ feeling ah, foofu lañ dugg rek ah, ci waxtaan bi alors euh, père gis nañ ne absence bi yàgg na ñu jékki-jékki euh, gis la nga génn li nga xamante ni mooy territoire muy tëkkal àdduna ah, tey lan moo waraloon absence boobu xam nga Abdou c'est le travail liggéey rek mm-hmm. lu waral loolu nit ki balaa ngay génne lenn il faut nga xool nga seggaat nga xool wax naa ko waxaati ko ma ne ko woo wëy su digtewul yeetewul rek du wëy man sax sama absence du lenn amaana projet yi bëri nañu macha allah sant yàlla liggéey bi aussi ëpp na ma doole bougement yi bëri na moo taxit mais nag Sénégal moo ma ñor man senegal laa am man fii laa juddoo fii laa yaroo doomu Tambacounda laa soppe yi fans yi du xam ne duñu taay si man mu ngi fii si réew mi Sénégal kon nag euh, moo taxit euh, soo leen ma gisee gis rek nga xam ne liggéey moo ma jàpp waaw mais euh, xamal ne xamal ne si biir li ma jàpp jàpp yëpp sama xel mi ngi si pour bégal soppeeku ak fang si waaw. Euh, comme ni mu ko waxee ne euh, euh, yàgg bi mu yàgg yëpp pour bëggal askan bi moom moo tax alors aussi dañoo gisoon lu doy waar ci ci ci <laughs> ci père ji maanaam bi ngay xamante ni mi ngi doog a génn di doog a fël nga ñu daan jox ko ci mel ni Jale bu Thiès ak nga xam mooy Fatou mbay maanaam sa diggante ak yàgg yàgg ma maman série alors ñu jékki-jékki ngeen andiwaat loolu maanaam sénégalais yi bëgg ko ba di ko xaar lan mooy sa secret. waa Abdoul si ma secret lan la rek la mooy ñaari couple ñoo sëy jëkkër woykat jabar woykat ñu won na ñu war a won nag un bon exemplaire c'est pas du tout facile nag ndax euh, ñaari ndaanaan di sëy toujours y a des hauts et mais toujours nag da ngay xam ne euh, euh, ba ngay débuté yéen ba ngay débuté yéen ñaar la te aussi sëykaay bi yéen ñaar la te ñun ay porte porte de voix la ñu àdduna moo ñu seetaan àdduna moo ñu déglu toujours rek war nañ def benn exemplaire boo xam ne day tax soppe yi ak fanc yi day tax aussi ñu ñuy consommer ñi xam ne ñi il sont toujours là ne euh, day am day am diggante ñaari couple ku ko dul woykat sax mais diggante ñaari couple chaque jour il y a toujours des conflits mais euh, si grâce de Dieu parents yaa ngi fii njaboot bi am na ba pare macha allah toujours da dañuy def suñu xel ni bu ñu décevoir suñu soppee yi man ak maman chérie nag euh, ay complice lañu donte nag sama jabar la ba pare suñu ñaari maam ñu bokk ndeg baay mais ay complice lañu ba pare mu doon sama kàll territoire territoire pourquoi pas territoire maman saa soo ko jàkkal ak moom rek moom day won ne carrément moom nëbbu ko dafa ne carrément man bëgg ma wujji te jëkkëram nee ne moom doomu doomu lislaam la am na droit takk euh, ñeenti jabar loolu kal diggante sama kal Cissokho ak Dramé yi chaque jour concurrent boobu la ñu nekkee ba territoire bi nii buñ koy bu ñu koy buñ koy bu ñu koy def di ko di ko di ko dina koy incité pour ñu woy ko nangul woon. nangul woon nangul woon ndax euh, en tant que euh, en tant que femme de foyer en tant que aussi soxna si biir kër. day ne ah, ah, ah da koy waxtaanee sax mu ne ma góor lu mu foowee rek dëgg la si moom. <laughs> Ah, maanaam maanaam Sénégalais yëpp loolu lañu jàpp parce que bu kii li bi génnee ñu ngi yaakaar ne est-ce que fexe ba li nga xam ne maman maman chérie jéem waaye ak moom di ko gëm loo ne ayaf ña est nekkul loolu tamit da nga ko bëgg moo tax nga ànd ak moom waaye. maman maman yàgg na koo jooytu. woy bi balaa muy génne woy yàgg na koo jooytu parce que nangul woon sax woy bi parce que su ma naa ko ma ne maman ma ne ko cause bi. su amee cause bi dinaa takk jabar cause bi su amee cause bi dinaa takk jabar. des fois da ngay toog di far di waxtaan moom ay affaire ñaar yooyu yee léegi nag njaboot bi boppam dañ koy fekkee euh, soo xoolee euh, ba mu nangoo woy bi euh, sama doom yi répétition bi dañ koy fekkee répétition woy bi imagine toi territoire am na mooy yu bari macha allah sama doom yi ñu ma ko jox comme ñoom léegi ñu sont 100 pour cent olof. comme ñun ñun ñun ñun ñun moom on est on est né dans une famille raciste comme les Soninké et les Bambara euh, mais xale yi comme seen xarit yi olof la ñu 100 pour cent te ba ba ba ba ñuy dugg si débuté woy bi rek ñu jékki-jékki rek maman nee na man dal xaw ma lan de mais fii moom naa ko moom. beneen doomam ne na ko sa territoire la fa yaay booy. Hmm. waaw famille la commencé. li sa territoire la yow kenn du la bun xatal. yow si territoire la mu ne maa waa fii maa ko moom fii sama territoire la ku mu neex ku mu naqare man. moom nag dafa mel dafa joŋee de moom. <laughs> mu ne ku mu neex ku mu naqare mooy aaw buur këram ma ne ko aaw buur këram moom ma recevoir ñaareel mooy recevoir ñetteel mooy recevoir ñeenteel loolu moom forcé la. mais loolu ci way bi da nga ko way pour maanaam euh, pour sénégalais yi lay seetaan wala li nga nekk lu nga xamante ni bëgg nga ko yow bëgg nga takk ñaareel. non xam nga woy su dictéwul rek euh, yeetewul rek dama naa naxaate la. Euh, donte nag on est on est on euh, dañuy wax dañuy wax jaloore géer yi wax leen lu baax mais nag il faut ñu aussi ñu xool li li li lu nekk euh, société bi lu si lu lu lu lu si nekk actuellement Abdou lii dafa xew ndax nag borom kër takk na ñaareel aawam bi ñëw def naka su dul noonu yàq matériel yi chaque jour nga yéen yéen voilà yàq matériel yi. lu mu liggéey pendant pendant des années benn fan mu yàq ko ba pare aussi fiirande mu tax na mu mu ñëw attaqué rivalam wala ñi ñi ñi ñi ñi ñi defante si biir xew yi loolu yëpp am na léegi si diggante ak eh, eh, eh, si si si si si si couple yi kon nag euh, comme nous nous sommes les l'islam dañuy nekk góor am na droit takk ba ñeenti jabar mais am nañu aw yi xam ne mun mënuñu ko supporter. mënuñu ko supporter. mën nañoo xam si waaw Djiby Dramé ba xam ah, bëgg na takk ñaari. mais pourquoi pas Djiby Dramé non attends je suis honeste euh, je suis jullit là mais am naa droit takk ñeenti jabar mais pour le moment. mais waa Chérie nekk nekkul looloo tax ngay. ngay non pour le moment nekkul sama bureau ba pour le moment. ndax du ay nax. non mais su su amee su amee su amee xam nga xam nga dama dama koy waxaat faar dafa xew. xam nga liy vaar vaar xam nga vaar. waaw mooy dafa xew. bugguma vaar parce que am asgoor war na ragal vaar. moo tax it euh, souvent dama ne nag yàlla moo xam. mais pour le moment nekkul fii. dañoo woy woy bi pour yeete dañoo woy woy bi pour xam ne sénégalais yi. maanaam pour jéem a peese sa sa sa sa pour mën a xam nga dugal ñaar comme. non non non non non def ma ko pour piéger ko moom boppam xam na loolu sax waaw njaboot bi xam na loolu xam nga woy bi bu njaboot bu mu fekkee ah jox la ay moom ah franchement loolu loolu c'est du travail yombul nag ndax na moom mii du ko woy sax yombul si moom. moom mii yombul si moom abdul moo tax it euh, territoire bu mu génnee euh, moom dinaa ko wax chapeau à lui à yi ndax euh, tax na tension yi léegi beese nañu aw buur këram yi am nañu valeur aw buur këram yi yëg nañu seen bopp aw buur këram yi mooy suñu yaay mooy suñu jabar mooy suñu mooy muy metti muy naqari ñoom lañu njëkk a gis kon na jox nañ leen seen seen gëdd jox la leen seen valeur nga xam ne képp ku ñëw pour euh, képp ku war a ñëw dañuy xam ne ñoom aussi ils sont ils sont de la maison ah ay grand dames la ñu ndax nag fu muy métti fu muy naqari ñoom duñu ko fekkee ñoo njëkk a teral goro ñoo njëkk a teral njëkke ñoo njëkk xam métti borom kër xam lu douleur borom kër jàmm su ñëwee ba jig borom kër am droit tàkk mu am mu ñàkk am mais aw il est elle est toujours la présent parce que njaboot bi wër na ko ba pare aussi adduna bi am na si moom yaakaar ba pare kër gi am na si moom yaakaar kon woy bi def territoire dafa ñëw sagal aw buru këram yi sagal aussi këpp ki jigéen aussi jox jox message ah si foyer yoo xam ne sa diggante ak sa jabar complice yi ak aussi conflit boo xam ne moo tax seen sëy di yëngu-yëngu ndax image toi sama biir wéen dama ko ne ah bàyyi mu ngay xool sama téléphone su may sangu ah bàyyi di ma contrôler ah su may génne nga may contrôler ah soo soo foog ne yow rek yaa ma moom. Ah, ba pare loolu loolu ngeen def li nga xamante ne ah ju ah, maam def ngeen ko dafa mel dafa nekk ci biir couple parce que à chaque fois da ngay dégg problème bari loolu la yaay xool sama téléphone ak yooyu lan moo waral maanaam la ba pare ngay ngay génn ins ngay génn rek mu jël otom. wala mu mu jaaral sax mu woo woo woo kenn demal nga xool ban côté la jaar loolu yëpp am na si foyer yi en fait en fait yeete la wéy bi yeete la macha allah comme ni nga ko waxee euh, na waay bi yeete la euh, mais dañoo gis avant euh, clip bi di génn xam ma mu def coow ñu naan Djiby Drame dafa divorcé ak yooyu est-ce que mënuñoo di ko laatal problème yooyu nag nga yaakaar naa ne loolu <laughs> ngeen ko doon dégg. man man man man dund naa lu garaaw lii maa ngi doog xam ne <laughs> defet waruma sama foyer macha allah defet waru aussi ma ma chérie si foyer am ndax man àddunaa ma woo. man aduna ma wa Abdul. na coow parce que ñun sax yaakaar ko wax naan waaw waaw wa aduna ma woo man euh, en fait euh, euh, bu coow li bëree bare à la fin man ku ma woo ma ne ko pourquoi pas amul lu takk man foofu laa ko amul. mu demee te yow foofu nga ko te amul. moom <laughs> ma ne doo dee yeew nit ñi nga wax nit ñi lu lekk li kilib la li wëy la doo yee ñi ne man ne ko ah non mais attends mais amul droit. kon yow dañu yow lañu yow la ñu jox euh, euh, ndam bi daal waruma waruma tàkk Mama Chérie méritewul loolu ak doon na na man ko yow mais attends qu'est-ce qui se passe amu si droit nag loolu franchement sa sa ça ça monte dafa dafa dafa won ne carrément que sénégalais yi bëgg na couple ak Djiby Dramé ak Mama Chérie macha comme ni nga ko waxee euh, yaakaar naa tamit li sénégalais yi di wax aussi euh, su ma toogee yow day baax ma laaj la ko euh, parce que ñu ngi gis que ni maanaam bu affaire bi génnee def coow ñu bari ñi ngi naan jibi est-ce que maanaam est-ce que nekkul ne maanaam si digganteeg ak nga xamante ni moom mooy moom mooy moom mooy maman Série est-ce que nekkul tamit ci xew comme ni mu la koy expliquer sénégalais yëpp naan est nekkul dafa bëgg buzz moo tax mu bëgg a créer divorce pour maanaam bu génnee son bu mën a am valeur lool lool lan ngay wax ci loolu waaw man Djiby Dramé yàgg naa génne son macha allah mu am buzz lool yaa wax léegi man lu ma génn mu doon it lee doon en fait wuy bi wëy bi dafa nekk suñun territoire bi dañ ko yàgg di togg parce parce que dama la territoire moo ko doon organiser ak moom. ngeen créé maanaam pour son bu bëgg a am fu mu yegg fii Sénégal de moo a divorce bi. mais attends lu neexul kenn du ko consommé Abdoul lu neexul kenn du ko consommé. Mm-hmm. lu amul aussi kenn du ko déglu xam nga ut bi buzz ah, ak moom sa liggéey bokkul su ma bëggee léegi am buzz léegi léegi ma amaat léegi ma am buzz ma ñëw lonk benn xale bu jigéen léegi léegi si mbedd bi léegi buzz am na ubbi ma léegi léegi Djiby Dramé kenn mosu ko gis mu xeex si mbedd léegi ma xeex kenn léegi ma am buzz. lan moo waral nga créer loolu avant avant kii en fait clip bi balaa muy génn fi ñu dem tourner clip ba. communication bi yëpp mooy Djiby Djiby Dramé di ma seen ak maman Séré. ba bu ñuy doon tourner clip ba ñi doon romb de seetaan clip ba xamuñu lu xew ñoo tas affaire bi. dañ ko fekk ci hôtel yooyu yooyu yëpp ñu ngi ko doon. Oh, non xam nga xam nga kenn ku nekk après day def ay argument mais nag bu ñu doon tournage dafa am ñu doon romb di seetaan. ñoo génnee nag rumeur bi Djiby Dramé dañ koo fekk maman da ko fekk muy xeex ak kenn ah, euh, gelam la maman maman euh, fayet na xale bu jigéen bi ak soxna Botor ba dem moo tax gis nga muy wax com grand comédienne foofu da nga xam ne kan laa tournal clip bi soxna Botor laa tourné clip bi. soxna Botor waaw soxna Botor laa tourné clip bi. ñu ne Djiby Dramé dafa génn ak euh, comédienne bu mag xam nga ko soxna Botor la. kon nag xam nga su dee loolu affaire buzz la du ñu wax comédien. xalaatu woon ci loolu comme coow bu ma amoon. non mais attends ñun xamoon nañu woy bi su génnee day day doon day doon eh, day doon ah, day dem macha allah xamoon nañ ko ndax nag dafa xew keneen dund na ko keneen keneen dund na man sama nawle yi dund nañ ko ñun sama naatango eh, eh, naatango mama chérie yi dund nañ ko xam nga fu ma waxee léegi nag woy bi dafa xew. dafa nekk actualité ñi génnee ko won na carrément aussi baax na aussi ñun mii méngoo méngoo nañu aussi ñun suñu suñu couple xam nga fay méngoo nañu suñu couple ñun ñi génnee ko ñun suñu ko génnee dañu xam ne wa ñu ko war a génne génnee nañ ko looloo waral coow bi mu def coow bi mu am coow mu naw coow bi ba pare sénégalais xaaruñu woon fii yow mii sa bopp xaaroo ma woon fii. parce que man bu ma jotee euh, information yi ma man jàppoon naa ne dëgg la man bu ma jotee. waaw mais loolu ah da nga foon dëgg la mais mais attends su amoon sax aussi nga xam ne am na. mais heureusement amul. <laughs> alors comme ni nga ko waxee aussi tamit ah, duñ toog ak yow te te dina laaj ci diggante ah, Mia gisee ak ki nga xamante moom mooy Mabo yaakaar naa ni ah, yàgg yàgg maman chérie yéen fi njëkk a def loolu couple ànd di sànce bu neex alors tey bi nga toogee yëg ni divorce boobu am na ak référence bi nga xamante ni ñoom amoon nañ ko ci Sénégal yi lan nga mën a déclaré ci loolu ak lan nga yëg. chaque jour moo ko jour mu ko. chaque jour ma ma may ñaax leen ma ne ko amuñu droit à l'erreur mais nag sëy bu nekk am na bakkan man ba léegi gëmuma ko non gëmuma ko parce que damaa gisoon seen couple lu mu meloon dafa neexoon ba pare ñu am complicité seen ñoom ñaar mais nag yàlla lu mu def kenn mënul si dara mais nag ba léegi dama ne am nañu droit ñu waxtaan seen biir ñoom ñaar. mais divorce na foofu trois fois pourquoi pas parents yi duñ jógaat je ne sais pas pourquoi pa parents yi duñ jógaat parce que waa islam su nangul loolu aussi benn kër man dama ne mia sa benn nijaay doom nijaay jël la rek pour deux jours rek xam nga dalaat sa ci kër. nga jël ko pour deux benn kër nijaayam doom nijaayam. doom ah, benn doom nijaayam jël ko pour deux jours rek xam nga baaraasoo di xam lu ñu ko waxee. voilà jël ko deux jours rek après mu da nga delloo sa kër jëkër sëy leen. am na amul solo njaboot bi am na ba pare ba pare seen couple dafa nice mm-hmm. man conseil boobu laal nañ jox franchement j'ai trop parlé de sa loolu boo comme loolu boo amee sa diggante yaak ah, maman chérie alors est-ce que maanaam des fois di nga ànd ak sa soxna di see ah, maam def ak moom di gën a di ànd moom di waaye ak moom ah, mu jékki-jékki benn maman ku ne nekk jël yoram est-ce que loolu tamit nekkul ad moom des fois yu bari moom moo koy. Eh, aujubilaa mina seytaani rajiim lay wax en euh, Euh, dañ ciy sant yàlla julli Seydina Mouhamed sant samay waajur sant aussi samay goro sant aussi sama entourage sant aussi ñu may liggéeyal mooy euh, toujours dañ may ñaax rek ñu ne Djiby Dramé na yaa woon mama chérie sur scène yaa woon mama chérie ba àdduna yëpp di ko wax mama chérie kër baayam beneen tour lañ ko jox beneen sant beneen sant lañ ko jox mais yow tey la scène musicale yaa ko tuddee Mama Chérie Mama Chérie boobu ngir yàlla rek dimbali ñu bu ñu la décevoir te bu ñu décevoir te loolu chaque jour daf may cloche sama biir bopp mu doon sama soxla macha allah am nañu njaboot nag njaboot nañu même su dee du lenn sax moom dafa xër si njaboot man ma xër si njaboot neexul nag c'est boo gis rek am na am na ay conflits. c'est boo gis rek am na ay rëq-rëq mais toujours da nga koy def de sa biir bopp moo xam ne yàlla moo ñu boole xuloo am na xeex am na gàjjante am na mais jiboo dafa war a am Abdul ñaanuma ko yàlla te yàlla bu mu am te xam naa ni incha allah rabbi si ñaan waajur yi ak kattan yàlla ak mbaaxaayam yàlla dañuy jàppale waaw dañuy yàlla dañuy jàppale kon nag euh, am naa soxna boo xam ne du ma dugg ci détail mais moom moom dafa ñëw sëy si ñëwul sëy fonk na ma teg na sama place fonk na njabootam fonk na sama waa kër yem na naa ko fa mu war a yem amaana nag si soxla sant ñoom seen xeet dañoo fiir loolu moom <laughs> yàlla def na ko bu pare non dafa natt su moom moom moom ko foowu ko dafa fiir kon nag loolu loolu loolu loolu du ñàkk ku bëgg a fiir. à fois dañuy gis ne couple bi ànd di way euh, des fois mun na neex des fois mun na naqari lan mooy différence maanaam loolu pour couple yi ànd di waay comme ni nga ko waxee ne des fois couple bi mun nañoo ànd di way mu neex des fois mu métti lan lan lan mooy différence. couple yenn saa mu neex mu naqari couple. dañoo siw xamul lu waral xam xamul lu indi loolu xam nga xam nga toujours tu la là toujours yàgg si jëkkër toujours yàgg si jëkkër macha allah nit koo miinante nit ki rek koo mënta jege rek bëñ ak làmmiñ ñoo ñoo ñoo dëkk dañuy xuloo dañuy dañuy juboo dafa mel ni bëñ ak làmmiñ rek lu olof ñaay wax rek lépp na ko rek am na xam nga loo sàcc ak loo moom bokkul si fenn ku nekk loo sàcc ak loo moom bokkul kon nag loolu loolu loolu c'est normal loolu c'est normal loo am c'est normal ju ngeen juum am day am waaw waxtaan day am après ngeen déggoo heureuse et humain après nag waxtaan waxtaan da ngeen waxtaan solo leen waxtaan rek ngeen juboo solo leen waxtaan rek Euh, ngeen am yoon waaw yenn saa nag da ngay toll benn moment boo xam ne yokku góor ki doo gis dara ah, pour def lu lu lu naka noonu jigéen ko aussi doo gis dara nga def naka noonu mais rek soo toogee ànd ak si dal ànd xel nga xam ne aussi euh, am nga ñu lay seetaan am nga ñu lay surveiller am na ñu la bëgg am na aussi ñoo xam ne ñu ne ñaw walla gàddi. loolu soo ko xamee ne da nga war a delloo sa bopp moom laa wax ñoom miyaa aussi nañ sóoraale loolu moo sarale loolu waaw. alors euh, comme ni nga ko waxee euh, aussi yaakaar naa ni euh, bu ma ko laajee ci Meya boo ko boo ko dégloo di nga xamante ni divorce boobu metti na ko alors alors aussi tamit comme ni mu wax ci soxnaam xam ma yaakaar naa ni li yombul kon jigéen bu nekk war na mën a fexe di sàkku li nga xamante ni moom mooy ngërëmu jëkkam parce que nga toog di ko tagg dafa nekk li nga xamante ni lu lu lu lu doy waar la mun naa ni sax yombul ci couple mais balaa boobu sànq ñu ngi dégg ci clip bi. Euh, ñu ci dégg ki nga xamante ne moom mooy euh, Soxna Bator mhm. lan mooy choix Soxna Bator ci clip bi. sama doom yi ñoo so Soxna Bator. sa ci bopp. <laughs> surtout sama taawu jigéen bi. <laughs> moo soxna ne la ne la dañoo dañoo wooy bi ba ñu paree koy ba mu ma mu ne ma ma ne tournage bi su ñu ne ko jël Soxna Bator mu jàkkaarloo ak sama yaay. mais avant boobu nga Soxna Bator. séeréer waaw découvrir naa ko. ma woo sama sama sama sama sama rakk. ku baax tabaarikàlla macha allah Baye Modou ma ne ko Baye Modou ma ne ko ah xale yi rek réclamé nañu soxna bu tóor pour pour euh, pour euh, clip bi Baye Modou mu noonu na ma mun na ma yaa ko tere neex kooku sama siste la mu contacté ko sur place mu yombal ma ko. yombal ma ko soxna bu tëjee mën ma ko lool. soo leen gisante yee ñaar. di gisante nañu si place Baye Modou macha allah ma koy biggee may biggee mais miinante wuñu woon mais bu ma ko soxlaa si baa moo de aussi laa jaar mu nekk xale bu baax ma koy nuyu à au passage sama rakk bu baax boobu xam ne il est serviable euh, si liggéeyam bu muy def ndax bay Modou nga këpp ki artiste këpp kii ndaanaan soo demee si moom il est ouvert ba pare nag il est gratuit Baye Modou day servir askanam day jàppale askanam kon nag merci beaucoup bay Modou euh, mun mu yombal ma ko nag ma ñëw jël nag euh, ku euh, jëkkëram si kii clip bi mu ngi tudd Makan Cissé ku xale bu baax aussi grand bu baax moom tamit mu ñëw jàppale si clip bi clip bi moom law la cat law la ma lamiñ dafa ñëw rek euh, méngoo ak woy bi soo xoolee scénario bi aussi sama réalisateur bi macha allah dafa gis scène bi rek mu ne ma waaw mu ne yow de yombal mu nga sama clip bi ndax lii laa soxla woon mais euh, comme ni nga ko waxee euh, gis nañ ni fi nga jaar ba décroché ki nga xamante moom mooy euh, Soxna Bator ci clip bi mais dañoo bëgg xam tuuti maanaam Soxna Bator la ma a suwaay ba léegi moom lañu bëgg xam en fait. wax naa la ko sama doom yi ñu ma ko soo ne Soxna Bator dafa dafa dafa dafa pànk Soxna Bator dafa pànk dafa egg ba pare nag ses gestes ses comportements en fait tu sais que saa mu ngi mu ngi dund si famille sénégalaise on est en Afrique. lu Soxna bu Tudd rek sa film bi rek ah. dafa génn génnaat dafa génn aussi logique les femmes sénégalaises suñu meree merci beaucoup suñu meree les gestes ko ñuy def ah les acteurs bi ñuy def Soxna bu Tudd à tout ça kon nag kon xale yi ñoom ils sont toujours ah dans les dans dans les dans les réseaux euh, ñoo ma ne papa suñu sañoon. clip bi territoire nga wooñu soxna Bator ba pare nag aussi ñu won ma ay séréem sur place lu muy defante ma ma ne ne ay waay dadi man mun naa lii. kon boobu nga ko doon suivre maanaam bi bi nga xam yàgg naa ko suivre mais nag fu muy defante xale yi da découpé ba ko ma gën koo xoolaat. ma ne ko lu ngeen wax dëgg la ma ne ko ma maman pare nga maman nee na ma man de ma gën a jaaxal soxna bu tóor de dina ma dóor ba diiri ma <laughs> bi nga ko waxee loolu dafa xaw a ragal quoi. ah non non di boobu nag gis nga tournage bi soxna ba mun ma man damay jéem de. <laughs> damay <laughs> ah, avant boobu quoi. tournage bi. non sax dafa ne soxna ba maa ngi jéem. Euh, soxna ba tóor ne xoolal bu tànkeetewu loo ko defee rek ma topp la. ndeysaan bu sur place harmonie bi daw. su tournage bi dafa neexoon. dafa neexoon c'est la famille. kon nag euh, chapeau à son abatteur sa Sakor Amakan Cissé chapeau aussi ay euh, Baye Modou chapeau aussi tabarikàlla Cheikh sama moom a ñawal ñawal raccoutrement boobu euh, Cheikh moo ma ñawal taalibe taalibe Serigne Babacar si moom ma ñawal ñawal yi rafet macha allah ma fii boobaa doo fël fii ngee fël mu ñëw rek affaire bi méngoo ah merci beaucoup. <laughs> comme ni nga ko waxee yaakaar naa ne ah, décortiqué nañ li nga xamante ni moom mooy clip beeg ah, son bi ñu ko sénégalais yu bëggee ah, maanaam coow li ci am. ma gën a son bi euh, ba mu génn mu génn franchement laa ne ah wax dëgg yàlla de nii li ma bëggoon si woy bi am na ko ndax euh, fu mu mënta romb depuis son bi génn léegi macha allah sant yàlla fu mu mënta romb rek territoire ngay dëgg territoire territoire. territoire territoire. def coow nee naa la TikTok beeg yëpp am nañu. territoire territoire ah, mais na man man sama parti lu ñu ma lu ñu ma dul utiliser sama parti moo métti parti maman chérie bi parti parti bu ndaw boobu noonu ne. ma no my God loolu loolu gars yi moom la jël mais xam naa ni aaw yi ñoo ko dooleel dama la wax benn affaire aaw yi yéen ñoo dooleel parti maman chérie bi man tamit lu mu wax la dafa am solo kon nag kolal ñii ñi ñuy euh, sama sama sama sama sama sama sama naw lay lay waxal. sama nawle yéen laay waxal fexele man tamit sama parti bi ñi koy tiktok ndax nag fii maa ko moom fii sama territoire la jël na jël na jël na woy bi de mais mais man man tamit sama côté boobu muy wax noonu bi wax euh, euh, euh, ay waay ndaw si sonal nga ma bàyyi dama contrôler bàyyi di jël sama téléphone fu may sangu soo fekkee ne man yow rek yaa moom xam nga jum nga am naa droit takk benn ba ñeent jabar jëlal loolu ah non Abdoul lii message la <laughs> message yaakaar naa ne aussi dina jàll parce que yaakaar naa ne yow àdduna laa bëgg àdduna ñëpp dañ lay seetaan euh, alors mooy fi ñuy duggaatee euh, mooy euh, ci actualité bi nga xamante ni am na ci diggante Wally dafa doon tëgg fi nga xamante ne moom mooy stade Amadou bari alors aussi ñu gis Ndeye Gueye sërëm yeeg di lim ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñoom ñoo ñoom ñoo dëkk Guédiawaye amaana mu fàtte lim Sidy Diop mais alors bu mu ko bu ko fàttee tudd ba Wally fàttali ko ko après dafa jëf coow ku nekk nga gisee loolu. en fait euh, soo nekkee sur scène nga nekk borom micro ngi woy bala leneen ngay def même su dee même su ay conférence kilifa diine yi sax conférence lépp ku képp ki téyekat micro laay wax tension soo la jàppee sur scène da ngay am jumte man da dal na ma benn scène. dal na la yow mi waaw grand théâtre sama benn grand nuit du Bazin tour bu bu allah sama benn parrain ñëw Serigne Ousmane kii kii non non kii Ousmane Ousmane kii Serigne Ousmane mu ñu sama kaw eh, si kii eh, eh, jàkkal lak man xam kan laa wax ah Souleymane Ndéné Ndiaye. waaw <laughs> da nga jaxasoo ba pression bi des fois moom mooy moom mooy waral loolu. ne su Souleymane Ndéné Ndiaye. ba léegi affaire bi dafa affaire ay retal la ma def mais yuuxu Souleymane Ndéné Ndiaye rek sama sama seet seen. du ko yuuxu lu yàgg yaa ngi Souleymane Ndéné Ndiaye Souleymane Ndéné Ndiaye ku may jàkkaarloo kooku toog du ma reetaan. man foogoon naa ne kooku wóy bi da du ko wóy di ko di ko di ko di ko di ko enjoy ndekete man fàtte naa. fàtte day am day day am. mais lu nga ko waxee nii. imagine toi nga xoolal waale lu mu ko retiré. mais géejuwaay. géejuwaay ndee ngay xam na ne Sidi Diop il est de géejuwaay. jumte am na. chapeau à Wally foofu rek war na xam sénégalais yi coow coow lu mu bari bari bari. wax bu mu bari bari bari bari seen nu dans nous kii su amul xel keneen ki am xel te gis nga euh, woy suñu liggéey bi millier bi du milieu woy du arène duñu ay ay mbër dañuy bëggal jaam yi dañuy bëggal doomu aadama yi balaa ngay woy il faut nga bit non ah balaa nga wéy foog nga bég woy dafa ànd ak sanse woy dafa ànd ak xeeñ bu neex woy dafa ànd ak reetaan woy dafa ànd ak tabaarikàlla macha allah ndeysaan mais woy su naree nekk mbër nañ jàppante man de dinaa teg tey mi ko teg micro ndànk parce que man awma doole. wallaay al azim non non non non non man awma doole. doole bu may bëree tabaarikàlla macha allah maa daw maa ngi maa ngi daw du ma lu may lu may wéy ji di biggal sama soppee fànn si ñu kontaan. tamit euh, des fois day mel ni sénégalais yi ñoom ñooy aggravé wax ji comme ni nga ne waa si question bi. ba léegi yaa ma dugal maa ngi si question bi Wally a bien fait indiwaat système ndax nag ndéegee dafa bëgg Wally ba wane ko ragal féete day xañu wërsëg ni day am péete. ba mu amee péete waale woon na carrément nag sama péete bi nag doo dugg si erreur mu indi ko Sidi bu mu su ko déggee dina xam ne magam waali amul xol ki ñaan te Sidi sama doom la amul xol ki ñaan kooku maa ko juur sangu jaray baayam Omar Jóobay baayam man Jibi man mi may ni jaayam teg ma sama jox ma sama cër lool sama doom la loo yëgul Sénégal umpul kenn yaayam suñuy dalul benn kër fii lay daal sama kër te yaayam saa su ma toog ak moom di waxtaan dee ne jibi sii dina la déglu man ko dina ma déglu ndax na duma dugg si lu doyadi du ma fekkee si lu doyadi du ma wax lu doyadi du ñëw ragal doomu aadama duma ko wax dëgg saa su ma nekk ak sama doom dama ko ne na carrément gis nga ki la jiitu jox ko cër ndax man sama baay loolu ma doon wax dama ne jibi daan bul naagu bul bew loo am na ku gën a mun Abdul loo barle barle am na ku gën la barle loo ñàkk-ñàkk nga xam ne ku la gën a ñàkkale aduna yàlla may nañu leçon te mun nañ ko utiliser te duñu sonn man demee ni alhamdulilah rabbil alamin laaw mooy lan jibi daraame xalaatuma sama àdduna ma danaa jàkkal àdduna mu tiim mu tiim micro jàkkal ak man di ma introsé merci beaucoup ba ma doon babat di raam di di di dugg si car rapide yi di fighting pour am hauteur sama liggéey mooy musique su ma xalaatee loolu rek lu ma am tey bénéfice la di santaat yàlla julli seen naa Muhammad sant sama ñaari waajur nga xam ne saa su ma nar def juumte rek damay xalaat sama démb man lu ma mën a wax sama rakk yi ndax nag ñuy suñuy rakk lañu suñuy doom lañu nañu wuy te teraanga bi la ma ñoo am nañu sens nouvelle génération bu ñu bokk nit ñi xale yi dañ leen bëgg xam sens ban sens am xale yi dañ leen bëgg muy waali di Sidy Diop di Pape Birame di euh, euh, ala ki doomu njuga bi moom moo jeen law la cat duma liim xale yi di bambaane may gis hmm? doomu doomu doomu doomu euh, kii eh, allah rastaman bi sama xarit bi tingéej bi Euh, euh, allah woykat wa waaw taala jazaka mam doom doola doom mam goor jazaka mam góor sama xarit la xale yi ngay gis ni génération yi yëpp seen génération ne leen bëgg kenn ku nekk mun nga am sa wërsëg te doo sonal kenn te bu pare nag loolu dama koy waxaat ñu jox leen conseil gis nga soppe yi fanx yi réseaux sociaux mooy defal réseaux mooy yàq yaa ma dugal ci question de <laughs> réseaux mooy defal mooy yàq gis nga ñuy bëggee waale ñoo dem bëggee di Diop soo bëggee sa sa woykat soo bëggee sa soppe chaque jour dañ koy couvrir bu ko yàqal bu ko yàqal ndax nag am na ku koy bëggee mais yow sa kaddu rek tax na kooku bañ ko. am na ku xam ne day consommer musique am mais yow mi xam ne nga ne ki sama soppe la mais yow sa kaddu tax na kooku kooku bañ ko kon nag soppe yi nañ indaat seen xel ñuy fonk seen woykat pour mu ko dañuy gis si moom sax défaut ñu bañ a woon défaut bi ñu indi baax baax bi ndax na woykat sonn na xam ñan laa yërëm ñun woykat yi mais nag ñu ñoo woote génne télé ñoo woote bu du fës. du jàmm borom. du jàmm borom ñu ñoo ko woote. ñu ko assumer. mais ñu àndal daal ba léegi. fii yàllaa fi ne. alors euh, comme ni nga ko waxee euh, yaakaar naa ni euh, yaakaar naa loolu mi ngi def coow ci ci ndéegay ci tirage yi foo génn waal da ko humilier waal da ko humilier tey lan ngay wax maanaam ndéegay aussi lan lan nga ko mën a wax pour àndiwaat ko. moo mën a wax ndéegay bu mu bu mu xalaatee yooyu. ndax waale woon na ko fu ne. su bëggee waali waali wan na aussi wu fu nekk man bëgg naa la xoolal lii rek ñu ngi yàq diggante ñaar yi. cay àdduna. Sénégalais yi la. my God ñu ngi yàq. lu ñu doon lu doon lu doon lu doon polémique entre Sidi ak Waali ñu ngi nii di ko yàqaat diggante ak Ndege ak Sidi ak ak Waali te nag Sidi bu ma xam instant bi def ko si biir boppam kooku sama doom la. soo su ma dégloo. xanaa ah, amaana suma ma amaana mu changé fii tey tey léegi léegi ni heure bi heure bi léegi nii may wax yow amaana sud changé léegi léegi léegi nii mais chaque jour bu ma yaayam dénkaane ba léegi bàyyam Omar Diop dénkaane moom ba léegi saa su ma ko jotee téléphone wala mu déplacé ñëw sama biir kër dama ko ne ba ne ba léegi ma ko coow li lu mu bari bari bari bari bari sa mag def ko mag sa rakk def ko rakk bu la àdduna naa la jey ba nga ñàkk respect ñu la jiitu ci aar bi ndax donc man sa nijaay du ko def xanaa ñu sosal ma te man ku ma sosal fu mu toll gaaw mais nag man lu may wax sama diggante ak yàlla lay wax Sidi Ndeye Gueye nag ak waali wax adunay wax mais Waly su toogee Ndeye Gueye toog nga xam ne defuñu dara fii loo xam ne ay bañante la. wala ay clashante la wala toroxal na ko wala weer na ko wala ñaw wala gàddi amu fi erreur est humaine dal na waali dal na ma dal na suñu bàyyi ndem si yàlla Thione dal na Ismaïla Lô dal na Youssou Ndour dal na sama papa Ba Maal dal na kenn keneen lu defu si artist te Sidi est fier lu waali def maa koy tontal maa koy tontal alors euh, yaakaar naa ni. lu waale geste bu def geste noble la cëy sama rakk bi li nga am gudd fan waali sa yaay nga nuru bu gis doomu adama di dox na nga ne ko énge ke woowee yaay bul liggéey kër bàyyi doom fu mu dem ñi seen ko Abdul moo xam la benn affaire bu gis doomu aadama di dox nga ko lu tax yàlla may ko lii yàlla su doon su doon su doon séddale tabaarkalla macha allah am gumba du yelewaan am lafañ du yelawaan yàlla moo maye te ute te nag yàlla su la mayee xamal ni tabaarikalla macha allah moom mii yàlla dénkaane la su la ko jëlu si àdduna bi dee su jotee defutal dañ koy bàyyi fii ci àdduna ya te dee loo barli barli loo am am am fii nga koy baax Abdou nañ suuraale loolu ñun ay porte de voix la dañu war a yeete dañu war a digleet loo barli barli fii nga koy baax loo néewli néewli fii nga koy baax mbir yépp li mbir àdduna la man de du ma ñee sama nawle du ma ñee benn nawle ndax yàlla teral na ma amaana tey man naa nga wax ak journaliste amana koo xam ne mënul sax wax teranga du weesu loolu maa ngi solu di jàkkal ak yow amoon na ko xam ne mun mu solu yaramam yëpp fu mu ne nga ab blessure la lu tax may ñee sama nawle yàlla may na la may na ma damay ñaan yàlla kay yàlla loola may yàlla mu gën a yokk ak sa tuuti boobu ma yàlla dénkaane yàlla mu barke te yàlla nee na nag loo yéene sa bopp nga yéene ko sa nawle day gën a yokk kon na nañu yéenante jàmm xol yi juboo ñi nekk ndey ñi nekk baay woy du mbër woy su ma nee nekk mbër man maa ne Djiby Dramé bàyyi naa micro bi parce que aw ma doole Euh, aussi euh, macha allah yaakaar naa ne message bi am na solo bu euh, ñu toog yow li lañ bëggoon en tant que porte de voix comme ni nga ko waxee day baax bu yenn actualité amee yi nii ñu toog di ci waxtaanee yow di amoon mbégte loolu ah la dalal di waxtaane parce que yaakaar naa ne comme ni ma la ko waxee sénégalais namoon nañ la rawatina sa clip bi nga ko génnee ñëpp lu ko comme ni ma la waxee moom na gaa yi duggee marché moom la ñuy waxtaanee fu nekk di la bàyyi rek nga tàggatoo ak mbokk internetu Feeling Dakar TV doon seetaan ak sa soppe yi nga xamante ne bëgg nañ la Feeling Dakar kontaan naa si yéen di wax soppe fan si kenn du yéen gàcce nga laa ma soppe yi fan si macha allah bu ma commencé musique ba léegi law la cat sama tout public sont toujours fidèles sama public est toujours fidèle toujours fidèle toujours macha allah musuma am géew sama public boobu ñëwul musuma woote. gisuma leen law la cat law la ma làmmiñ man ñeen laay gërëm woykat mënul woy Abdul ñu koy béggee ñoo mën a way ñoo ko may doole di leen wax ne yàlla ngeen am gudd fan ku am métit yàlla mu saafara ku am naqar yàlla mu saafara di ñaan yàlla yàlla ma yàlla may gudd fan yu gëram saa su ma jàkkaarloo yéen ngeen dégg yàlla bu ma leen décevoir di ñaan yàlla yàlla jàmm yàgg Sénégal yàlla musal ñu te yàlla yokkuñu yaa allah yaa rabbi e, di ñaan yàlla ñi nekk si hôpitaux yi yàlla fëgg seen bopp te ñu am naqate ñiw ñi ñi ñàkk lu ñu lu ñu lu ñu ku leen jege ñàkk seen waajur wala ñàkk seen baab seen seen seen seen seen seen jegeyaay yàlla yére yërëm leen xare leen aljanna yàlla jàmm yàgg Sénégal kontaan naa si fi Dakar bég naa alors comme ni nga ko waxee euh, ni kontaan na ci Feeling Dakar ñun aussi ñoo ko gën a kontaan euh, parce que yaakaar naa ni euh, décroché ku mel ni moom yombul alors. bi ñu ko sentiree suñu émission bi nga ko wooyee euh, dañu ko yombalal bu ko neexoon nañu noo bàyyi leen ba semaine bi wala comme ni ko gars di defee euh, aussi tamit euh, di rafet loolu bu baax a baax a baax di la ñaanal lépp li nga xamante ni bëgg nga ko sa carrière suñu borom defal la ko di la wax ni Feeling Dakar kontaan nañ ci yow te aussi sa fan si doon seetaan am naa yaakaar que ni aussi tamit kontaan nañ ci yow di jaajëfal Ousmane moo nekkoon ci caméra bi Abdou moo nekkoon ci présentation bi jaa ngeen